taf ñu dem salaamaaleykum mbokk yi ñu dem nag ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne ñoo gën a fës nag lañ ca wax mooy le républicain génn nag la nga xam ne moom mooy collecte de parrainage yi ba léegi gaa yi ngi ci collecte de parrainage yi Pape Thialis Faye teg na vingt cinq mille parrains ci escarcelle bu Abdoulaye Sylla nee ko yow euh, Abdoulaye Sylla bu soobee yàlla danaa la yóbbu élire la dès le premier tour moom ki nga xam ne mooy Pape Thialis euh, Faye ba pare nag il offre dafa def benn formation may formation pâtisserie ak association des femmes de Cambérène waaye tamit Pape Thialis Faye a parrainé ce week-end la finale zonale football bu Ndiène Lagane mu nga noonu moom Pape Thialis euh, Faye nee na incha allah bu soobee yàlla Abdoulaye Diagne boo demee Sylla Abdoulaye Sylla boo demee da nga remise de parrainage tamit ba tey moo nekk à la une journée de Abdoulaye Diagne remise de parrainage à Abdoulaye Diagne Mohamed Diaité frappe fort avec 14 186 parrains ma nga noonu directeur bu nga xam ne moom mooy directeur poste ah def na jaloor bu mag mooy maanaam moom jot na Abdoulaye Diagne daal di koy jox ay parrainage yoo xam ne toll na ci 14 186 parrains kooku moom mooy Mohamed Diaité tey ci ëttu yéenekaay bi nga xam ne moo génn ci altine bi 4 décembre le républicain ñu jàll sa beneen ba ah, am na bu ci ñëpp ah nee nañu kii nga xam ne mooy Thiès Thiès nag yëngu na Habib Niang président du mouvement ànd Sénégal moom ci boppam moo offert une de transformation et un magasin de escortage ci jigéen ñi def leen benn jox leen benn kër boo xam ne seen escorté li nga escortage li nga xam ne mooy seen ay bagage moom Habib ñaa mi nga xam ne nag mooy président suqali euh, Sénégal ànd ak Amadou Ba pour jàppale ko loolu la def fii nga xam ne mooy ci week-end bi foofu ca dëkk ba nga xam ne moom mooy Thiès benn dëkk ñetti gaar waaye nag journée mondiale des handicapés à Diourbel a ah, tey la nag ñu ngi ko fay fête de ñuy xamal ne nag wax dëgg yàlla Ibrahima Sissoko président du mouvement mon pays mon avenir souhaite des élections inclusives et transparentes et transparentes la wax waaye nag kii nga xam ne mooy premier ministre démb yëngal na fooy nga xam ne mooy géej waaye de danañ ci ñëw ci yeneen yéen a kaay le premier ministre Amadou Ba inaugure deux édifices pour les les jeunes et les femmes ñu jàll ci beneen yéen a kaay ah sabar bu tas nañu wax critique nee na sabar bu tas sabar bu tas la élection deux mille vingt cinq vingt quatre yi ñu jëm di le vingt cinq février nee nañ à quatre vingt treize jours du scrutin présidentiel du vingt cinq février deux mille vingt quatre deux mois vingt et un jours moo ci des c' est l' totale quant au, pro, euh, au, au probable euh, successeur du président Macky Sall si ce ne sont si ce ne pas des noms qui sont biffés du fichier électoral ce sont des chèques et des cautions retournées ou encore des clés USB yoo xam ne ay tolof-tolof moo ci am nee nañu wax dëgg yàlla affaire yi yëngu na de son cortège bloqué à Matam Khalifa Sall prend <laughs> tànkam la doon doxee pour egg ci nga xam ne fa la war a dem Youssou Ndour da fekkee ma boole à ma si présidentielle yi nga xam ne moom la ñuy daal d' candidats à la candidature vont jeter les am na ñeneen ñoo xam ne danañ topp Youssou Ndour ci li nga xam ne moom la def mooy maanaam génn ci nga xam ne mooy candidature ñu topp ci ba ca toppaat topp ci ba relief nee na eh, en relief nee attention Fatick ñoom fàttewuñu Marème Faye Sall de nee nañ Marème Faye Sall même bu fekkee day génn réew mi ak borom këram dana des ci xolu ak xelu nit ñi ci bëtu nit ñi tamit ndax hôpital bi nga xam ne mooy hôpital régional bu Fatick dañ ko immortalisé tuddee ko Marème fay Sall la première dame moo tax tur ba léegi joxe nañ ko hôpital régional ba ca suuf nee nañu euh, présidentielle euh, 2024 kii nga xam ne mooy pikin démb Isaaxa Diop wax dëgg yàlla battre na record parrainage yi et développe 215 millions pour les femmes moom ca Pikine def na démb sargal président Macky saal sargal bu mag ca Pikine la ko defee waaye génn deux cent quinze millions moom Isaaxa Diop maire la foofu wax dëgg yàlla ne moom daal pare na pour ànd ak président Macky Sall wane li nga xam ne mooy seen taxawaay ci biir réew mi eh ñu xool ba ca topp évidence <laughs> nee na démb euh, weekend bi Bougane Gueye Dany def na benn magis benn discours bu rëy rëy wax étudiants yi moom fan la jaar moom étudiants yi nan la def wax étudiant yi nag que moom moom modèle la boo xam ne bu ko toppe wax dëgg yàlla ci jaar-jaaram kenn ku nekk mën nga doon benn Bougane Gueye Dany ci biir réew mi waaye nag li am solo mooy dépp dañ ko ko parane woon de étudiant yi dañ ko tàcc ci jaar-jaar bi nga xam ne Bougane Gueye Dany jaar na ko ba doon tey leader boo xam ne incontournable ci li nga xam ne mooy ëttu euh, politique Sénégal waaye tamit ëttu business ci biir Sénégal docteur Malick Diop bu AFP de Dakar moom tamit joxe na 20 679 parrain pour Amadou Ba <laughs> parrain yaa ngay daw de kii nga xam ne mooy Malick Diop bu AFP joxe na vingt mille six cent soixante dix neuf parrain pour Amadou Ba loolu la def ci jëf joo nga xam ne moom la def ci l'évidence bi nga xam ne moo génn tey ay ca ñu xool ba ca <laughs> la dépêche nee na kii nga xam ne le maire investit plus de cinquante millions CFA kii nga xam ne nag moom mooy Mamadou Gueye directeur des domaines yëngu na ca santé ca sport éclairage public à Djidda Thiaroye Kaw moom daal wax dëgg yàlla euh, foofu ca Djidda Thiaroye Kaw def na fa loo xam ne lu doy waar plus de cinquante millions qui ont été mobilisés pour accompagner les populations dans cette partie de banlieue wax dëgg yàlla moom Mamadou Gueye DG directeur bu moom daal waa euh, euh, euh, gox boobu nga xam ne mooy jël caaray kaw nee nañ daal gis nañu li mu yëngu ci santé bi sport ak éclairage public bi kenn jooyatu ko ndax fépp foo xam ne làmb rek da nga fa da ci li nga xam ne moom lay liggéey yii la dépêche moo ko génne tey ci journal bi nga xam ne nag moom ëttu kaay bi ci gën a xëy bi ci gën a fës ci yéenekaay ci jëf ji nga xam ne moom def nañ ko détournement de njaboot soowu njaboot bii oh, mamel njaboot mamel njaboot mam astafurlah mamel njaboot foofu nag dañ fa def détournement bu mag a mag ba xam ne tol na ci cent neuf million ñu jàll ca ba ca dakaar Dakar Express daal ñëw ne Cheikh Bara Dolly nee na pare na pour don président de la République parrainage am pare na caution pare na moyen logistique pare na ay otom communication parrainage am xaalisam pare na pour nekk président ci turu ñi nga xam ne <laughs> waaye ay saay xool suñu futur président gi nii ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Bara Dolly nee na j'ai tout ce qu'il me faut pour être président nee na man pare pour doon président de la République Youssou Ndour j'ai la carte de la neutralité moom Youssou Ndour nee na je ne soutiens personne pour le moment mais nous ferons un choix de raison moom nee na je ne soutiens personne pour le moment ah <laughs> loolu doy na waar retour au Sénégal Karim Wade prêt nee nañ pare fin prêt Karim Wade fin prêt mais dañ ko bindee nag fin bi wax dëgg yàlla mu mel ne xiif la ñuy def ba pare def ci prêt le candidat du PDS et ses alliés seraient en train de procéder au dernier réglage pour un retour triomphal et historique du pays ñoom daal ñu ngi préparer retour boo xam ne dana mel ne la jor <laughs> ba mu daanee tubaab ba ay ca ñu dem ca ba ca topp nee nañu mandat le manda nag lu rëy la wax Thierno Alassane Sall mobilise la diaspora à Paris moom intellectuel yi diaspora yeeg ñëpp la jël taaj leen ñu mu wax leen ban bilan la ñu mën a jaar ba sénégalais ñoom ñu retourné les intellectuels yi nga xam ne ñooy jëriñ réew tubaab yi nekk ci diaspora bi ñu retourné au bercail jàppale ko ci bu doon président de la République pour mën a taxawal réew boo xam ne dafay nekk réew technocrate moom loolu la wax nee nañu tamit ca la nga xam ne mooy Pastef bu Bignona Yankhoba Diémé Pastef de Bignona Ousmane Sonko ne se considère pas comme irremplaçable moom loolu la wax ki nga xam ne nag moom mooy ca Amadou Diarra <laughs> maire bu mag ba nee na eh je défie l'opposition man Diarra oppo xoolal loxo ba la jël ne eh moi je défie position ñu ne ko lu tax mu ne parce que pare naa ba pare joxe naa samay parrainage def naa sama lépp waaye fii sama zone ak fi nga xam ne moo nekk ci euh, département bu Pikine bu ñu kenn rey fii opposition bi dafa naa ne neex moom la jara wax moo tax dañuy jàll ci beneen ci yéen a kaay réel mu daal di ñëw ah Khalifa Sall décide de marcher pour rencontrer les peuples Khalifa Sall nee na comme que fu mu génn ñu arrêté otom léegi day dox waaye waaye ndaw soj waaye ndaw daal luy pënd xalifa yaa ngi def loo xam ne dana doy waar de ces véhicules bloqués à Matam xalifa Sall dafa décidé léegi fu ñu téye ay otom diggante bu ñu ko téye mu dox day dem même buy egg fajar dana dox dem parce que nee na daal yenn yi xamul lu mu koy moom xalifa Sall ci révélation bi nga xam ne moom la ñu wax tey euh, ci ëttu yéenekaay bi nga xam ne mooy révélation du lundi 4 septembre 4 euh, octobre euh, décembre du mois ay ca ñu ñëw ci li nga xam ne nag moom mooy Moussa Thiaré Euh, Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Je vous voudrais aujourd'hui exhorter le président de la République à appliquer intégralement la loi d'orientation sociale avant qu'il quitte le pouvoir loolu nag wax dëgg yàlla fu mu ne nii xam naa ne est-ce que jot bi xaj na fi parce que ñaari weer moo fi des loolu est-ce que bu fi xajee tamit euh, ñu jëm ko ci xaj-xaja ba mu wees ah 24 le dernier combat du bien contre le mal au Gabon Mbackiou Faye parrain de la journée Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul de la vingt et unième édition du Magal de Grand Bassam en Côte d'Ivoire moom kii nga xam ne mooy Serigne Mbacké yu fay moom moo nekkoon parrain ba le message de Serigne Mountakha Mbacké aw xalif général Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murid quand Serigne Touba était venu à Grand Bassam il était seul son engagement pour les humains et énorme lui seul mérite grâce à ses remerciements maanaam les sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund foofu nga xam ne moom mooy ci Côte d'Ivoire ay ay ivoiriens lañ ay africains lañ ndax Serigne Touba ci boppam na chacun peut revendiquer son appartenance Bamba foofu ca Côte d'Ivoire ndax wax dëgg yàlla Serigne Touba modèle la ci Afrique ku jora euh, euh, euh, sargal la ci biir Afrique ndax li mu ci def ak taxawaay am na solo moo taxit ki nga xam ne moom mooy mbàkk yu fay parrain ba wax dëgg yàlla rafetlu na li nga xam ne moom mooy liñ ko parrainé ci bés bu am solo boobu yal na ko yàlla defal jàmm doon njiglaayam ndax la mu fa wax ak taxawaayam ak kam fa teewaloon di Serigne Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murit ak wax dëgg yàlla defal na taxawaay bu am solo ñu romb ca ba ca des cëll interview de choc Youssou Ndour wax na ci li nga xam ne mooy présidentielle 2024 diggante Abi Ndour ak Viviane immigration clandestine ak bal de fin ne moom daal nee na fekkan ma ci boole léegi man bokkatuma ci damay toog di xaar damay neutre moom moo ko wax Youssou Ndour nee na moom ay affaire ay kii laa àndal opposition yooyu moom day toog neutre moom loolu ay fekkee ma ci boole ndax mom li muy préparé daal mooy élection législative yi daal ci lay nekk candidat mais lay dugal ay député ñu kii yooyu moom ci yooyu lay nekk mais instant bi ay candidat yi moom euh, vraiment il faut pas euh, man yooyu seen wax yooyu kasaw kasaw yooyu man nekku ma ci yooyu la suñu doon wax waaye audience de proximité avec des insulteurs waaw Macky Sall lan moo ko dal Macky Sall mooy parrain les contre valeurs maanaam ñi nga xam ne saagakat yi gën a rëy ci réew seen parrain loolu ñu bind fii xoolal awaskat yi awaskat yi bii nga xam ne lu mu yàqul président Macky Sall amul Macky taxaw moom di photo moom Dubaay nii Dubaay la barki démb Macky Sall taxaw ni awaskat yi bi nga xam ne lu mu saagawul gouvernement Sénégal magistrat ministre ak kii nga xam ne mooy waajuróom président Macky Sall waajuróom bu góor ak bu jigéen madame fay Sall ñoom ñëpp boo demee nga tàppe vaar ci YouTube di nga dégg kàddu yu ñaaw yi président Macky Sall taxaw ni di foto ak moom muy ree ñu ne def na ko ak kii nga xam ne mooy mooy Californie def na ko ak ñeneen ak ñeneen waa Macky Sall lan mooy problème ba saagakat yi léegi moom la fonk ñu koy wax dëgg en le rapport du chef de l'État avec les insulteurs et les traîtres ah Khady Gakou kooku loolu ci question yi la bokk de dugal ko ci biir dama ne le président Macky Sall ñu muy àndal di photo wu ñëpp genn wàll ñëpp ay saagakat nañu te mbir bu doy waar kon nag loolu jara jar seetaat la moo taxit ca ëtt yéen a kaay bi nañ ko ca fang ñu dem xooli beneen boo xam ne moo ca topp après l'observateur ah Youssou Ndour fekkee ma ci boole. nee na fekkee boolewu ma si te moo nekkoon président mouvement fekkee ma ci booleen Youssou Ndour ne ne eh attention fekkee boolewu ma si Youssou Ndour ni candidat ni soutenir en 2024 bu ma kenn wax na naa ko soutenir sama yoon nekku ci maa waxoon fekkee ma ci boole roccee ma rocceeku ma ci génne bokk ma ci ma noonu waaye nag ca suuf opération de parrainage de Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar à Dakar docteur Malick Diop de l'AFP bat le record 20 679 parrains plus de plus pour le candidat de Amadou Ba Amadou Ba daal fu mu ne nii mu ngay jot ay parrainage yoo xam ne fu rek mu ngi fay xaye euh, bàyyee ko docteur Malick Diop def na ci jëf ju am solo ñu xool ba ca topp ay yaa bay ñëw ba ca topp ñëwal nee nañ les échos waa TFM na nañu benn ponkal boo xam ne wax dëgg yàlla ab ponkal la kii nga xam ne jaay la ci Sadio maane ñu naan ko Bakary Mané le rédacteur en chef journal record Bakary Mané du journaliste mag démissionné na et monte son propre structure télévision ak ak ak ak journal la génne am na télém ak journal mook saajo Mané papay saajo maane ak papay Bakary Mané ñoo bokk ndey ak baay nijaay directeur ci saajo maane moom mooy manager fii ci Sénégal moom Bakary bii démissionné na TFM ubi télém ak journalam ñu ne parti démocratique sénégalais Karim Wade nomme Maguette Sy mandataire national pour le représenter dans toutes les étapes processus yëpp na ko fa représenté yónniwul keneen ku dul ki nga xam ne mooy Maguette Sy hmm. loolu lañ bind son cortège bloqué Khalifa Sall continue à pied Khalifa Sall daal dañu bloqué ko li nga xam ne moom mooy cortège am moom am ful ak fayda dox nank dem ay jéego <laughs> Khalifa ari eh Khalifa ari argaay eh mi ari Khalifa ari Sall ari mi juurima mi weltima yo Allah sonen mi salminon bandiraɓe sehaaɓe min ko min ko jeego jeego jeego ar arñaam arñaam nene ko kaay nga lekk kaay nga naan ndax yooyu ar ar an diyam ar ar okkam diyam nee na dañ ko may ndox parce que fi mu dox dafa sori waa kay moom la wax ils ont arrêté le cortège c'est leur droit mais nous avons décidé de poursuivre non la marche et dénoncent moom dañ koo gàttanu ci buntu dëkk ba bañ téye otom mu wër leen doom ba wiiri fa oto ba ak caabi jox leen ko ne leen comme que téye samay tànk nag amul caabi maa moom sama bopp ñu romb ci beneen ah la tribune la tribune nag nee na tong-tong bu mag moo am ci huit millions deux cent soixante mètres carrés déclassé trois mille cinq cent familles zappées gis nga àll bi nga xam ne mooy àll ñoom ah, ah, ah, Ahmed Aïdara bi Abdoulaye Seydou Sow ak ay cadre bu APR na ñoom lañu ñu accusé duut leen baaram na ñoom ñoom ñoom ñoo séddoo suuf si foofu 160 hectares offerts illégablement à des joueurs de l'équipe nationale ñoo xam ne ay équipe joueurs yi fa lañ leen mujj daggal foofu ca àllu géejawaay ba ñi nga xam ne na ñooy ayant droit dans cette affaire des parcelles attribuées à des fantômes maanaam ay parcelles yoo xam ne da dégg ñu la jox lañ ko diw te diw boobu xamuñu maire bu Malika nag moom dañ koo zappé ci li nga xam ne mooy plan de urbanisme bi ak détails yi te foofu ci programme la bokk ndax géejawaay ak Malika ñoo ko séq na wax dëgg yàlla tey accès à l'emploi ak aux infrastructures maanaam ñi xam ne tabax cinq étages ba six étages dañ leen di fàtte dugal leen ci li nga xam ne moom mooy seen motuwaay waaye ci infrastructure yu bëri ba pare ci cadre liggéey boolewuñ leen ci ñoom ñoom koy ñaxtu Sénégal nag gën naa yëngu de foofu ca Touba dañoo def braquage ci entreprise bi nga xam ne mooy Enancine ñii defar li nga xam ne moom mooy télé bi benn gang daal moo jël ñetti million ci benn chinois daal di koy tiire tiire armé tiire chinois bi tiit na ni ah nuhu mu ci cub jox leen xaalis bi dem yoonam balaa bakkanam di faatu ñu jàll ci beneen ah politique le président Macky Sall a eu l'heureuse idée de ne pas se présenter à l'élection présidentielle 2024 Abdoulaye Sy Dage bu ministère de de la justice Abdoulaye Sy Dage moom actuellement nii nag ma ngay def mayage complet du territoire pour collecte de parrainage yi nga xam ne mu la jox Amadou Ba moom ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sy Daal wax dëgg yàlla ma nga ca liggéey bi nga xam ne liggéey bu am solo nga xam ne mooy candidat Amadou Ba ci la nekk nii foofu ci dëkk ba nga xam ne nag moom mooy Thiès benn dëkk ñaari gaar ñu xool ndax tëj na war a tëj ñu ah jeex na mbokk yi loolu moo doon ëttu yéen a kaay yi li ci gën a fës ci kaay yi ki nekkoon ci réalisation bi di suñu xarit Lamine Sow fekkoog ki nga xam ne moom mooy euh, Youssef ci sab bi ñu daal di leen bàyyi nag xari gàkku ci question yi nga xam ne mooy question d'actualité ñu daal waxtaanee traité ko ci seen matinal ñun ak yéen ba heure bi nga xam ne mooy daj dëpp bi la sobe kon mbokk yi dans quelques instants ñu ñëw ci tampon musical tampon publicitaire service commercial ñu xool lu ñu indi di la wax ni ni lay demee saa nekk rek bu xëyee daf ñuy jox li nga xamante ne moo gën a fës rek ci yenn kaay yi waaye laata loolu nag ñu ngi nuyuwaat àdduna wërngal këpp rek di nuyuwaat kilifa diine ak kilifa aada di duggaat ba ci hôpitaux yi rek di nuyu malade yi ah di leen ñaanal wér ba ñu mën a delluwaat ci seen i kër di duggaat ci prison yi rek di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la yàlla ñoom la ñoom la caabi féete ginnaaw ah, di leen ñaan yàlla na leen yàlla eh, defal leen caabi féete leen kanam ba ñu mën a ñibbisiwaat ñoom ci seen i njaboot te la leen fa dugaloon bañati leen ku ne xam na ne am na si ñoo xam tantam ñu ngi fay dugg par erreur yal na yàlla tàppe xol yi ñu ngi ñaanal aussi ñi nga xam ne ñooy taximaan yeeg ah, chauffeur si tamaan yi ñaanal nañ ñëpp yal na leen tali bi